أعوذ بالله سميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بكي جنا ginnaaw سنتي الله yàlla سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ñu ngi nuyu sunu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñooy suivre seen télévision Safina FM Safina TV tabarakallahu di leen ziar baax di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm defal leen sutura waaye di nuyu kilifa diine yi nekk ci biir réew mi ak kilifa aada yëpp tabarakallahu bàyyiwuñu kenn ñu ngi ñaan yàlla réew mi di Sénégal yàlla na fi yàlla dotti jàmm ci daraje Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu deesuwaat yéen nag seen émission madxu nabi tabarakallahu émission bi nga xam ne dañuy tagg Sayyiduna Muhammad di waxtaan ay jikkoom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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما mbokki صفينا TV mbokki Safina TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di jël nuyu bi ak ziyaara bi teg ko ci loxool suñu soppe suñu xarit tabaarakallaahu di jàmbaar ci toolub yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy al oustaz Seydina Alioune Faye mu joxal ñu ko mbooleem Safina TV bi tabaarakallaahu ak mbooleem àddina bi yëpp fu waaye mën a nekk rek di jàkkaarloog suñu jëmm ñëpp rek ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu Seydina Omar macha allahu taala eh, fa tabaarakallahu mu ngi noonu Seydina Omar nag wàcc na rajo bi tabaarakallahu xam naa télé ci des macha allah xam naa ne bu àddoo di ngeen bég incha allahu taala Seydina Omar kon dañ lay bàyyi rek nga bégal soppee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag jaare ko ci mbindu wali yu mag boobu di maam Khalifa Niass tabarakallah yàlla na yàlla yokk leeram te daaxum si barkeem ci darajee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam سكرت وما الخمر ولكن بأوصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم سكرت وما الخمر المعتق شربنا ولكن بأوصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدب بقلبي سر أوصاف حبه دبيب حميات المدام المهتدي أخو الحب لا يخلو حشاه من الجواء ولا من دموع فوق خد مخدد ولست أرى صيدي عنك كاتما ولو كان نافي نجدتي وتجلدي محمد عبد الله أفضل من هدى لدين حنيف من غير مشدد فأما صلاة الله ثم سلامه على طه خير الخلق دون مفند صلى الله عليه وسلم حق للمولد شريف تهاني وسرورا به حسن الأغاني نارز الكون من هو ازداد حسنا بمحيا ربيعه النوراني يا له مولد جدير لديه شكرنا وسنا على المنان حق للكون أن يزيد ابتهاجا وسرورا به مدى الأزمان واجتماع بليله وأناشي بمديح في سائر البلدان قف بالربوع البوالي السنين الغوالي ولتسقها كل دمع يهميك فاضل آلي دورنا هيتوه أهيلان بها زمان الوصالي أنساك في كل دارين وكل أهل ومالي إن غادرت كرسوم منها حلي فغبالي وأوقدت باستياقين في القلب جيس وتصالي فقد سقي ترحيقا للوصل عز بل منالم زرت أخد وأمسي في حب خير الرجال ولا أسيء الحق لعازلين فيه ولست أبالي من يسقي لي زين منه في حسنه المتلالي من نوره كل بدر يبدو والشام سزوا لولاهما كان كون إذ كان عين الكمال فهو المقاد دم حقا في الخلق خدو نجدا لي وإن تأخر بعضا فافهم لجام الخلال أتى به لولا ما طمت بحور الضلال ودجت الأرض منه وزلزلت للزوال فنار صوب هداه ولا حبار الكمال يا ربي فاح محماه حقطا هوا صاحبي له كراء من وآلي وابسط لنا كل خير لا ينتهي بنهمال واصلح لنا الحال كلان من كل آل ومال واحفظ جنا بحمانا من سوء صر في الليالي وحلنا في البرايا بهيبتي وجلالي ثم الصلاة على أخاد مالكمال وناصر وصحابين وآله والموالي صلى الله عليه وسلم يلا يلا ننجو تبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد بن لول كنت ننجو تجين بي نيخنا waye tamit leer na lool masha الله تعالى yalla yalla fayal sunu mam mam khalifa ñess yal nañu yàlla fayal ko te yokk leeram ci daraje Seydina Muhammad salaa sallam Seydina Omar dañoo bëgg nag tey nga waxtaan ñu kan mooy maam Khalifa. tabaarakallaahu. Mhm. Seydina Alioune ñu ngi salaat nuyoo bi. Mhm. tabaarakallaahu pour wax ci maam xalifa moom. Mhm. xajul ci minute. dëgg la waxuma la ak ci heure wala bés. wala weer sax wala at. dëgg ndax. Euh, jëmu jaani toll. ni ni mel. waaye nag pour barkeelu ci moom. tabaarakallaahu diinay. def tawassul mhm. ci ki nga xam ne tey moo fi représenté jëmmam ci kaw suuf mhm. muy xalifaam mhm. di Cheikh Ahmed Tidiane Khalifa Niass di ñaan yàlla guddal fanam yàlla may ko wér te mottali mbooleemi sumbam defal ko mbooleem xulafaaw yi nekk ci réew bi yépp dafal ko mbooleemi taalibe ak soppe yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog ñun dañuy seetaan maam Khalifa Niass radiallahu anhu eh, pour wax ci moom dana jafe waye dañ koy présenter rek def ben exposition bu ñuy def ci mom exposer ko tek su ko defee nag ne len cadeau baangi ni nii. ubbi ko xam la ca biir. tabaarakallaahu nañ koy exposer moy dañuy jël ki nga xamanteni ni si. mooy royu kayam di xaritam. di sopem di turondom di nuro walem ci lépp. moy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. tabarakallah mam Khalifa. doyna rek nga wax ni. maam Khalifa Niass Mouhamad mooy turam. Mhm. maam Khalifa Niass waaye juróom gu góor mi ngi tudd Abdallahi. Abdallahi waaye juróom gu jigéen mi ngi tudd Soxna Aminatu. est-ce que mu niroole ko ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaye mhm. niroo gi doyut. Mhm. bu ñemee ci loolu rek. dañ naan loolu day yàgg nañ koo dégg. waaye loolu mën na am boo ko wëree ci réew mi mën na am nga gis ko. donte gisaguñ ko. koo xam ne Muhammad la tudd direct. baayam tudd Abdallahi yaayam tudd Aminatu. mu juddu altine. génn àddina altine comme ni ko mm-hmm. yonent bi defee. Mm-hmm. ah gisaguñ ko. Mm-hmm. kon boog gisaguma loolu. waaye doy na ci eh, niroo gi. ma alaaji eh, eh, abdallahi mi nga xam ne moo jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo wax ne seexandoor la woon maanaam seex la woon seexandoor ba di jigéen waaye seexandooram bi dafa teela génn àddina maam xalifa ñas waaye juróomu góor wi di abdallahi seex la woon seexandooram ba di jigéen mu teel a génn àddina. est ce que mu koog bi. barakallah yonent yàlla moom sallallahu alayhi mhm. yi bokk na ci maamam yi. Mhm. nga ne Ibrahima maamam la woon doy na ci képp. Mhm. loolu lu ñu yàqal la lu am la. waaye maam Khalifa Niass doy na ci rek. nga ne maamam moom tamit. Ibrahima maamam la muy Ibrahima mi nga xam ne moo jur waay juróom wu jigéen. mi maam Ibrahima Kellel Thiam. Kellel ca Thiamène Waalo. nga xam ne dëkk bi yàlla barkeel la. foofu la waay juróom wu jigéen bàyyeekoo. nga xam ne tey maam Samba Thiam mi mm-hmm. nga xamante ni si tey. Mm-hmm. moo sañ ci caameen waalo. Mm-hmm. tey yaakaar naa ne mbooleem silsila ak Sénégal gi. boo demee ci eh, boo mm. nga dem Touba. Mm. nga dem Ndiassane fu mu munti dem mm. seen silsila yëpp boo ko dàqee mu jëlu ci Maam Samba Thiam mi nga xam ne tey moom moom nga dégg olof sax di wax naan Sénégal benn bopp kenn mënu koo mm-hmm. ah, xamee rek mm-hmm. su ko defee moytu wante beeg yërëmante bi dana gën a amati solo waaye dañ koo xamut nag moo tax mm-hmm. bot wante bi xeebante bi wala nangam bëri ndekete yow ki ngay xeeb yow la yow la ndekete yow ki ngay tuutal yow la ndekete ki ngay ñàkk ci moom yërmaande ndekete yow la waaye yonent sax gën nañu koo jegeel mhm. ne man laa yarxamu naasa laa yarxamuhu llah ku amul yërmande ci nit ñi rek yàlla du am ci yow yërmande mhm. kon nag nañu gën a dawal yërmande mhm. yërmande ci la lépp di sosoo dëgg la gis nga saa bu ñu demee ba ñàkk yërëmante bi di manqué manqué suñu biir rek mooy waral ngay gis ay musiba di bëri suñu biir musiba yi nag Mhm. bari nañ mhm. musibaay xuloo mhm. musibaay wante sutura waaye musibaay accident musibaay xuloo musibaay ay kilifa ay mag war a toog war a nekk bon exemple nit ñi di roy ci ñoom ñuy toog di xuloo ak di saagawante loolu yëpp li ko waral rek mooy ñàkk suturaalante waaye ñàkk wóoluwante ak ñàkk yéenante jàmm dëgg la ku yéene li nga yéene li nga yéene sa morom na la na la biir ne yaa ciy njëkk dëgg la olof ñooy naan yéene néeg la borom a ciy fanaan sëñ Abdoulaye mu Mbàkke euh, Mbàkke mu baax bi mu ne hmm. yéene mbubb la borom moo koy sol moo koy nit ki rek na nga gëm ne yaa ci jiitu kon nag boo ko xamee noonu hmm. kon loo yéene nit ñi rek lu baax lay doon lu nit am ci lu baax lu nit am ci teraanga hmm. nga am na nga ni na nga yëg ni yeggoo ci sa borom wallaay naa bari ah, sa kii bi rafet na ah saa oto oto bi sa nangam sa nangam waaye boo wanee ginnaaw la nga njëkk wax ne saa yi de moom dëgg dëgg moo sañoon maa koy njëkk am oto dëgg dëgg nangam li gis nga wax nga ko sa mm-hmm. waaye boo fekkoon ne maanaam cofeel googu mm-hmm. ni mu ci ni ngi ni ko amee noonu nga ciy bëggee mm-hmm. balaa yàgg suñu borom defal la ko wallaay dëgg la waaye da nga ma ni histoire yàgg na fi ba ñi jàng téere day am loo xam ne léeg-léeg dañ bañ ko koy nettali liy dox ci diggante saxaaba yi histoire mën naa mos naa dox ci diggante Seydina Omar ak Seydina Aboubacarin Sadiq ba ñoom ñaar tuddante wuñu yonent bi yëg loolu mi ngi koy yëgee woo Aboubacar ne mhm. ko dégg naa yaag si naaw ma da ngeen di rombante du ngeen nuyoo mhm. mu ne ko waaw lu waral loolu mu ne ko nàngam ak nàngam la xam nga am na yoo xam ne ko wax mhm. mu woo sëñ naaw ma tamit laaj ko na ko dëgg la kay lu waral loolu mu ne ko nàngam ak nàngam yàlla yónni jibril mu xamal Seydina Muhammad sallallahu alayhi ak Seydina Omar mii ñoom ñaar ku ci taseeg sa morom ku njëkk nuyu sa morom rek amel naa la benn château ci àjjana waxuma building waxuma étage waaye château. château boo xamante ne si maa ngi lay xaar ci àjjana yow mi njëkk a nuyu sa morom rek. est-ce que. yonent bi woo Aboubacar déy ko loolu na ko kon boo tasee ak moom nuyu ko woo Seydina Omar déy ko loolu ko boo tasee moom nuyu ko. Mhm. ndax xéewal gi nga man cee jot. Mhm. ñoom ñaar ñu dox ba tasee ñoom ñaar ku ci nekk taxaw di jàkkaarloo sa morom di ko xool Aboubacar na ko Omar doo ma nuyu. Omar na ko yow Aboubacar doo ma nuyu. <laughs> mu ne ko eh, man maa la nuyu ma. <laughs> mu ne ko waaye man maa la gën a féetee ndaw <laughs> laaj lan moo tax nangoo maa nuyu mu ne hmm. yow lan moo tax nangoo maa nuyu xam nga hmm. sama turandoo <laughs> ne ko hmm. dafa am boo ma njëkkee nuyu dafa am xéewal gu boo ma nuyoo rek yaa koy jël nga moom ko na moo tax na seen diggante kon problème amoon <laughs> loolu nag loolu li ma lay wax nii nag loolu la valable Hmm. ba suñ jon bis yàllaay tey jii nii. Hmm. tey maag yow bu ñu amoon riiroo. Hmm. ma njëkk dëgg sama dàll. ñëw ci yow. dox tànki jàmm ne la damaa bëgg lépp loo jàppoon sama diggante yow nga bàyyi ko ñu seq jàmm te muy dëgg ci man. mu doon dëgg ci yow. sato boobu keroog suñu borom dana la ko defal. waaw kon lu tee tey. ñi nga xam yaakaar pour dénk leen suñu réew mi. ñuy boddi wante ak defante yooyu xanaa ñoom dañoo xamul xéewal gii. xanaa ñoom dañoo yëgul lii. suñu borom dana la dénk réew mi ba pare oyofal la yen bi ba pare defal la résultat fii ak fa ñu jëm soo defee lii ma wax nañu gëstuwaat njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wasallam te tënku benn problème duñ ko am saa buñ ko ko deselee ginnaaw rek problème yi day daal di bari mhm. nit mënoo am réussir àddina ak àllaaxira te tënkoo ci waxu yàlla tënkoo ci njàngaleem Seydina Muhammad waaye tënkoo ci njàngaleem mag ñi kon nag mhm. kooku mooy maam Khalifa Niass radiyallahu anhu mhm. ni mu niroo ak yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam Baye Malade Abdoulaye Niass benn bés dafa toog mu ni ko ma fanweeri at Mm-hmm. ma gis yonent bi jëhran mm-hmm. waaye keroog ba nga gënee àddina ba ca ñetteela fan ba mm-hmm. la ma yonent yàlla Muhammad feeñu ci buntu ëttu wàllaa ba li ñuy wax ëttu wàllaa ca wanag wa daal di ñëw ne ma maa ngi lay ndokkeel si ci gan gi nga xam ne suñ borom defal na la ko daal di ne ko naawil ni iyaaw jottali ma xale bi maa Alaaji Abdoulaye Niass daal di jël maam Khalifa Niass yëkkati ko jox ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy nekk liir mhm. ko taf ko yàlla Muhammad jël maam Khalifa Niass mhm. taf ko ci kaw dënnam bi nii mhm. wi saxal ko ci gémmiñ ak yonent yàlla Muhammad eh, gémmiñ dugal ko defal na ko maam Khalifa Niass Alaaji Abdoulaye Niass moo ci teg bëtam nii di ko gis te wa maa yantiqu anil hawaa ba mu koy wax ne ko loolu dama la ciy sant di la ci gërëm ndax sa gën ak àddina ci laa gisee yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam mhm. ba bëgg a wax ne nangam ak nangam xewoon na ci maam Khalifa Niass ne ko baa da ngaa xër rek mhm. waaye loolu maa ngi koy fàttaliku mu ma melal ni tey keroog la maam Khalifa Niass wax ne mhm. saa faxtuhu xanaa xanaa xamoo ne yow bàyyi saa faxtuhu bi yaminin fii musaamaratin wa dammani dammatan saxat yaa ilali saa foante naag man ci dënn jël laa ma ñëwee saxal ma ko waaye keroog laa yëg mbooleem jàngoro boo xam ne dafay dal doomu aadama jàngoro boo xam ne dafay làggeloo nit. ci hmm. cër wala ci nangam keroog la jàngoro boobu dañ ci man ba maam Khalifa Niass est-ce que sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy anhu hmm. mu nekk koo xamante ne si ci ngoneem jaar na ci ay sëriñu daara. Hmm. am na ci sëriñ daara boo xam ni. moom ba muy jàngal maam Khalifa Niass. su ko bindalee am mayata saa aluuna da ko yemal fii. maam Khalifa Niass daal di jël xalima gi bind. anin naba il azim bu ci lii topp du wér. ñu ñëw ba egg si tabaaraka mu ne ko tabaaraka lazi bii dil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir mu yem ci tabaaraka lazi bii dil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir di jàng loolu ci bind ba ci kanam mu jël xalimba gi bind allazi xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa azizul xafur bu ci liy topp wax ji du wér suñ daara bi dem ci baayam alaaji Abdoulaye Niass ne ko sa doom ji moom du mu ko bindalee fa mu yem moom day bind bind subaam bi moom da koy bind boppam ne lii bu ci topp du wér te def mu ma koy def yàgg na mu ma koy def nag moom nag xaw ma nag lu mu doon. Hmm. waaye daal xam naa ne man daal yéem na ma. ci a ko bàyyam woon na ko góor gi jàng jàngulul rek. Hmm. waaw bàyyi li ngay def nga jàng jànguloo. est-ce wax nañ ni maam Khalifa Niass mos ta dal téere jeexal ko. est que te moo ëpp xam-xam ci li yàlla bind. la ilaha illallah. bu dalee asmaa bu xaajee mu ne lii su ma ko bu fekkee téere bu nekk dama koo nar a jàng ba mu jeex kon kañ lay jóg ci daara ji man. téere bu nekk ma commencé téere bi fa mu tàmbalee ba fa mu nar a jeexee. Hmm. ma tàmbali ko nii ñi ma koy jox dansu par dansu. Hmm. téere bu jeex ma defaat noonu beneen. Hmm. waaw kon wattaqullaha wa yuallimukumullaah nag. kon man aay boobu ci lay sukkandiku. wattaqullaah wa yuallimukum ragal leen yàlla mu xamal leen lu leen kenn xamul. dëgg la moo tax mos ta commencé téere jeexal ko te doo tudd lefam xam-xam mm-hmm. doo ci tudd mukk mu des ginnaaw déedéet wallahi kon maam xalifa ñas radiyallahu anhu mi ngi noonu mm-hmm. amoon ci muhammad mm-hmm. am ko ci cheikhu tidiane da nga naan cofeel gi kenn xamul nu mu mel est-ce que na toog naan sama yaram wi sama sama sama sama yaram sama ciri, sama nangam fi mu ne damaa fees dell ci muhammad sama sama yaram bi fi lambu ne foo lamb muhammad mooy feeñ attana tuma diisaay bi attana tuma nangam fa qalbi sama mm-hmm. zaati sama ruux yi. Mm-hmm. widaadun fii widaadun fii widaadin. Oh. mu nekk ñetti widaadun benn bi dellu ci xol benn bi dellu ci jëmm bi dellu ci làmmiñ. dellu bi ndeysaan. summa ruux yi summa zaati yi summa jismi. jismi. Oh. kon moom amoon na cofeel goo xam ne. kenn mënul mm. a xam ne mel ci yonent bi. te mm. loolu da koy fekk ci ay wayam. Mm-hmm. da nga ciy fekk ay soxu da nga fekk ay haaja xalbi da nga ciy fekk yu mm. bëree bëree bëri. gis ni muy woyee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ko. moo mel noonu moo nekk noonu nga xam ne mhm. tey boo jëlee diiwaanam bi di unqudul jawhar bi mhm. mbooleem xarafi abaja day wéy na ci yonentu yàlla sallallahu alayhi wasallam ci ay xasaayit yu bare bare bare nga dem jël diiwaanam bi di kibriyatul ahmar mhm. mbooleem xaraf yi wéy na ci Seexu Tijaan Sharifil Fatim ci ci mbooleem xaraf yi wéy na ci wéy na ci ci ay xasida yu bare bare bare façon wayin bu façon baxru bu ne façon xeeti xam-xam ne ci arud mhm. ci balaaxa mhm. ci mantiq mhm. ci badia ci usul ci lépp ba ci fiq sax maam Khalifa Niass da ciy bind ba ci xam-xamu médecine lépp maam Khalifa Niass bind na ci bàyyiwul dara lépp rek bind na ko daal di tegal ñi nga xamante ne si ñooy xeetu sallallahu alayhi wa sallam benn bés ci kii bu ndaw rek nga xam ne def na ko mag ñi ñëpp sax waaye dama ciy cité ñaar rek Seydi Hadj Malick radiyallahu anhu Dia taala dafa am bés. Mhm. alaaji Abdoulaye Niass yónni maam Khalifa Niass. Mhm. ca Tiwaawan. Mhm. am lum mu ko jox ne ko boo demee nga joxal ma sa waay jur. naji Malick si. sama soppe. Mam Khalifa Niass dem fekk Maodo mi ngi toog di joxe darsu. moo tax dooy mbër jàngil bëre. <laughs> waaye sama bàyyi diw rek. Ah. am na ñoo xam fi ne waxtuñ sama bàyyi diw rek man sama mam. arab bu mag la yoroon wala ñu sama bàyyi arab bu mag la yoroon <laughs> yow yor. su ko defee loolu nag ndam rëy la koy def nag moom. ndeysaan la koy defal. dëgg la de. ko defee. Mhm. ba mu demee fekk Maodo ci darsu bi. dafa mhm. yegg si rek. Mhm. Maodo puus fi mu toogoon. daan ne ko toogal. am na ñu ne maqaama la am na ñu ne bayaan la. waaye daal yëkkatil téere bi jox ko ko continuer darsu bi. moo leen darsu bi tool yëpp bu ñu ko indil nag. mu joxe darsu. biñ pare na mu doo ko wax ne ko nag luy sa tànk. ba mu yegg laaj ko lu fi wut de <laughs> dafay sax mu ne darsu baa ngoog ba mu pare mhm. ba ñëpp pare mhm. mu ne ko macha allah li nga jàngal yëpp noonu la léegi nag lu doon seetaan mu ne ko bàyyi moo ma yónni mhm. te bàyyi mu ne bu ma fanaan nag xaw naa guddi nag waaye daf ne moon bu ma fanaan mu ne ko fële ca Kaolack Alaaji Abdoulaye Niass mooy sa baay waaye fii ci Tiwaan boo fi yegsee man maa maay sa baay waaw heure bu ma neex ngay ñibbi ci wér yow li ñuy wax ngombalante wa taxasa tashidu wa taxasa tashidu ay nay malafa mhm. la maa jafa ajifa naxaa tay fal kara ca duréydu mhm. jàpp naa sama bëti bëti mhm. def ko daal ma nekk koo xam ne damay damay foog foog mooy fanaanoo jàng ba guddi ñun tay bët set léegi nag bu ñu daan foog am na ñoo xam ne ñu ngi ci ruq ba bu ñu seen daf si ba pare hmm. yëkkati nañ digg ak fooy commencé di bind hmm. di di taalif hmm. am na ñoo xam ne ñu ngi ci lii ñii ñu ngi ci lee nanga wakki nanga xam nga daara moom fële lépp di di bàyyeekoo <laughs> kàngam boo gis rek ponkal moo gis ci daara la jógee waaw yàlla xam na ko su ko defee nag eh, bu ñu daan foog nag ñun booba xaalis yombutoon maanaam bu talaata àllarba hmm. laay commencé di dajale cent franc yu ma war a teg talaata. <laughs> talaata bii di ñëw parce que bu ma tegut cent franc du ma lekk ci mbaxal gi guddi. est-ce que waaw léegi nag bu ñu daan fokk. Ah. dañuy dajale ay ñaar fukk ñaar fukk. Hmm. suñ paree seet benn jigéen ci dëkk bi. Hmm. jox ko moom mu jëndal ñu ceeb ak ay moo ñu daan may sax gerte ndax. waaw bu ñu jëndee <laughs> mu jeex ndax duñ bëri. te du sakkan tegee. waaye nag xasee teg ñoom yi ñëpp a ciy bokk. ko defee nag mu toggal ñu boolu mbaxal. dégg ko léeg-léeg mu man ñaari bool. buñ jàngee ba ay boori yooyu nag ñu jëli mbaxal gi nag ma mm-hmm. moom bu toogee ba pare mm-hmm. da koy teg noonu bi rek kii ko noonu muy tàng kenn du ko laal su ko defee nag nga dem jëli ko ñëw na fi mu nag mooy foog fanaane jàng keroog mm-hmm. ci mboolem fànni xam-xam yi keroog waxtaanee nañ ci ñoom ñaar kenn fekkeewul waaye waxtaanee nañ mboolem fànni xam-xam bi mu xëyee nag jamonoy saxaar gi la woon mu koy gunge. Mhm. bi ko gungee ba ci gaar bi. Mhm. maam Khalifa Niass dagg na biyam taxaw. Mhm. ñii xaar ñu fëgg kolos bi. pour mu mën a dugg ci saxaar gi dem ñu taxaw ñoom ñaar di waxtaan. biñ fëggee kolos gi pour wax ne yéen ñi am billet waaj leen ngeen dugg ci saxaar gi ndax mi ngi waaj a départ. gi rek Seydi Hadji Malick Sy ne ko qad duribatil hadidu lil awraqi. maam Khalifa Niass ne ko bika wa ma bika min al firaqi. benn bëyit ñoom ñaar ñi bokkul ko kii jël satru bi kii jël satru bi ci même xaafiya bi mu ne ko fëgg bi hmm. ngir yil ñi am billet ngeen mën a waajal dem mu ne ko loolu de mooy tegtale ne kon maa yow leen ñu tàqali ko <laughs> oh. sëñ bi lii neex na lu may xam-xam neex na <laughs> léegi a ah, bokku na ci hmm. yu rafet yooyu nga xam ne hmm. ñëpp la ko amal ci réew mi maam borom Touba radiallahu anhu maam de Abdoulaye Niass ku ñuy wax maam Mor Anta Sali di waajuru Serigne Touba. Mhm. daf doon jàngale. Mhm. ci daara ji. Mhm. ba jëmmi jamono. mu ne ndongo yi. dama bëggoon ngeen may ma ab diir ma am lu ma diyaale ak suñu borom am lu ma jëflante daal. benn xelwa bu mu war a dugg. kenn ci ndongo bi ku ñuy wax Masamba Seen dëkkoon ca Dànq Seen. moom nag ñëw ca Saalum ca daara Alaaji Abdoulaye Niass doon fa jàngee. ba mu euh, demee ñu ne Korite la ñu ne Tabaski. dem julli ji. bi mu julli jee tombeeg sëñ bi génn ci xëlo bi mu dem ziyaare ji ko bi mu ko ziyaara sëñ bi natt aliwa mag ñi bu njëkk boo jógee waan mhm. mhm. daal mhm. la li shay in gi ci kaw fi bindal ma ko ndax bokkut ak yeneen li shay in yi ñu koy bindee wala ñu naan la bindal ma wa manaata booba maxaarijul xuruuf comme niñ koy waxee ñun boobu bu njëkk dañ naa la bindal ma wa manaata Mm-hmm. xam nga yow saalisata li nga xam mooy siin bu woow boo ne bindal ma wa manaata saalisata mm-hmm. boo ko waxee sama saar gi rek bu ñu xoolee sa gémmiñ xam ne mm-hmm. faa un nga wax oh. comme li ñu mag ñi daan wax cuun oh. su ko defee nag bu ñu la waxee bindal ma wa manaata saalisata mm. yow boo bindee bind bind siin ñu ne la daanu nga comme oh. yow yow da ngay jàng maanaam nga koo mokkal daal <laughs> dégg nga su ko sa sa ba ay nag mhm. Mamour Anta Sali daal natt Aliou ji mhm. xool rafet lool mhm. mu ne ko Massamba yow foo doon jàngee mu ne ko Saalum ca daara Alaaji Abdoulaye Niass mu ne ko kooku sama soppe la booy dellu fexeel ma yëg la wax ko ko mu yëkkati ci jamono bari toon ne ko lii koy jox dina neex yàlla waaye dina naqari saytaane boo demee nga ne ko boo demee nga ne ko soppeem moo ko jox Maam Mor Anta Sali hmm. Maam Alaaji Abdoulaye Niass xool mag ñi loo leen mënti jox hmm. lu dul alquran hmm. joxoo leen dara dëgg la de moo tax Seydi Hadji Malick daan na wax ne annaasu yaftaxiru bilmaali wan nasab waaye wa nahnu naftaxiru bil ilmi wal adab nit ñi moom xam-xam ak alal ak askan la ñuy foogarewu ay diwéy sama baay diwéy sama maam yooyu amul solo yooyu amul solo defal la diw doon def ba tax ñëpp xam ko nangul ko mën nañ ci wax yu bari waaye temps bi moo ko dul mayee kon mbir mi du naxe loolu liggéey loolu ngay fay ko man amila saalihan fali boppam ba man asaa tey mu dee kon jëf yi loolu rek la su ko defee nag maam moon ànd si maam Alaaji Ibrahima Niass daal di xool affaire bi mu am solo lool mu moo taawam bi maam Khalifa Niass boobu tudd tuddagul xalifa. Mm-hmm. boobu Mouhamad la. Mm-hmm. xalifa mooy ki wuutu boobu wuutoogul. waaw boobu wuutoogul. mu ne ko Mouhamad mu ne ko Niass mu ne ko xoolal loolu mu daal di xool ne ko waa bàyyi lii moom am na solo di mu ne ko sa waay jur moo ko man moo am ci seli naa ci def nii. Mm-hmm. mag ñi xam-xam rek. la parce que teraanga teraanga moo koy fay. maam Khalifa Niass daal di les xalimba gi. ne azka salaamin. ka taami suhdi bi raaxi. yanuubu anna wisaala raaxi bi raaxi. أزكى سلام قري المسك نفحته معطرا بالنواحي الشيق فواحي يلاك يو سنيو يميخي سلوغ يو أم يميخي يو سقيتي بات يو غراو ينغي utiliser لي كي غي وخال دي قدا يرنتو بي غي وخاتي يو نيغا ملت يرنتو بي أبونا مولي بي papa waxuma يرنتو بي bi من غوكو من ko man nga wax ne danaka yonentou bi la ndax tak neeram yonentou bi la taqiyun mhm. naqiyun mhm. aylamun alamun dañ ko yi moom bëri na di mu ne eh fama sanaa'i bi mutrihi wa amda'i. taguma pour ay xabaabal yooyu mu ngi non su ko defé non la tabarakallah qasida ba yegg nek fukki bayit ak benn Mamour andi Sali liir ko mu neex lol ci kasfu mu xamne dom je ko bind mu wo mom tamit mam borom Touba dan ne ko mohammed ne ko Mbàkke mu ne ko liral lolou mu lire daan ne bay ah, bàyyi taggin wu rafet wi bay yu neex yi yu am solo yi kii moom macha allah di mu ne ko sarak sa xarit sa soppe mohammed Aminata Niass lolou lañ ko daan wax ñom magni mo bind lolou way dama bëggoon yow tamit delloowal ma ko ay bay rek xamna ne buñ ko topone du dañ koy delloowante rek yëf neex motax la doon yonent yalla musa yonent yalla sallallahu alaihi wasallam al isra wal mi'raj eh, mam maam Serigne Touba ne ko ah bay wax sama xalima jeme ci benen binde budul dul yalla muhammad loolu dana ma diis de mm-hmm. waye nak ndigalal way jur la mm-hmm. moo sax dañuy wax sax nan mam mm-hmm. borom Touba bu moy yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam gissat ci bindam moom mooy bayit yoy mu bind jeme ko ci mam Khalifa nias motax bo boo ci salaf Ahmed Khalifa nias ba dang fa fekk ben photo bu mag ben photo bobu la fa gis mu def fi seigne Touba def fi mam Khalifa bayiti mam Khalifa mu def ko ni bayit seigne Touba mu def ko ni maam maam borom Tuubaa lu mu wax bay de bëriwut dafa wax ni ilal xaaji muy El Hadj Abdoulaye Niass muy maam muy maam Khalifa Niass nag lil xaaji di doom ci alxaaji te ba muy wax ne lii may bind mi ngi jëm ci alxaaji di doom ci alxaaji boobu maam Khalifa Niass demagul <laughs> kenn du man ma ngi leen yéeme mu ne zil ilmi wal faxri wal juudi wan nada mm. maa misluhul fityaanu fil ilmi wal karami man day mosumaa gis ci xale yi ku mel ci xam-xam mm. ak tabe ak yar mosuma koo gis ci ku mel ni moom ci xale yi parce que xale la woon ndax daanaka matoon na ko waay jur xale la woon ci ci kanamam mm-hmm. kon lii moo nekkoon mm-hmm. mag ñi nii lañ fi nekkee woon waaye nii lañ meloon ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. foo làmb rek ci ñoom rek yonentu yàlla Muhammad ngay daj wallaay ndeysaan macha allah foo làmb rek yonentu yàlla Muhammad ngay daj moom daan nooyee tabarakallah seen naamar kontaan nañ bég nañu lool bégati nañu macha allah sax laay wax tabarakallahu fi nga génnati nooy na gën nga ñooy waxtaan ci xalifa tabarakallahu dugg ci diggante ak mag ñi macha allah taala lii moom ku ko dégg te sa xol baax di nga kontaan di nga bég kon nag yàlla yàlla dool la sutura yàlla dool la jàmm tabaarakallaahu li tax ñuy sawati la invité saa bu la invité da dañuy kontaan macha allah taala kon nag dañ lay bàyyi rek nga def sa kàddu yu mujj kàddu yu tàggatoo yu mujj yi incha allah taala macha di la wax ni la oustaz kontaan nañ mm. eh, lu dul doy moom loo ci am rek nga doyloo ko Eh, te àddina yëpp tamit noonu la. Mm. lu doy amut fi. waaw lu ñuy doyloo rek moo fi ne. Mm-hmm. di fàttali suñu bopp. Mm-hmm. fàttali mbokk yi ne leen dund lu gàtt la. Mm-hmm. temps bi tamit dafa cher. nañ ciy góorgóorlu. temps bi nga julliwut. nekkoo di jàngal xuraan. Mm. nekkal di tudd yàlla. waaw ndax tudd al jàng alxuraan zikar la rek. boo jàngul alxuraan nag. nga jàngoo xasida yi barkeel yi. Mm. jël sa kurus di tudd yàlla wala nga nekk ci say baaraam. waaye yenn jataay yi ñu moytu ko mhm. yenn débat yi ñu moytu ko amul lu bi surtout fi jamono toll mhm. diw jàpp nañ ko diw def na nii diw def na naa ba ñenn ñi di ci meroo ñenn ñi di ci xuloo ñenn ñi di ci ngi gis ñu bokku ndey ak baay di ci meroo ndax benn jëmm joo xamante ni si mhm. eh, intérêt àddina rek moo war a loolu kon loolu ñu moytu ko koy àndal àndal ak moom te yàlla tax ah, kenn bu waxuñu ne bu kenn ànd ak kenn waaye koy àndal na yàlla tax bu lenn tax ngay ànd ak diw loolu boo ko defee rek danga nga perte fii perte fa ñu jëm ndax koo xam ne dañoo war a yëkkati lu toll ni am réew dénk ko ko ngay ànd ak moom ci intérêt war nga population bi yëpp te saa boo ñëwee li ngay wax ci say kàddu mooy jéem a convaincre nit ñi pour ñu topp kooku kon yow boo ñu convaincre ba ñu topp ko mhm. te yow leer na la li nga doon wax ci moom dara du ci dëgg mhm. kon yow yaa ñu trahir te loolu nag baaxut ñu moytu ko bu baax a baax yàlla nañu yàlla defal jàmm mm, sopp mag ñi mhm. topp mag ñi mm. mag ñi de nekkoon nañ fi benn problème amutoon ta bobu la jamono gënon na nakari mhm. bobu la jamono gënon na doy war fim mu ne nii nag. Mhm. suturaal gi suturalante gi dal mhm. ak waxante yu ñaaw yi dal dafa melni am ñu xamne dem nañ sax be pour jom. pour nit ñi xam leen wala ñu am alal il faut ñu wax lu bon. wala il faut ñu bayyi seen ci rip ci biti. billaahi wallaahi ah waaw mom day xamna ni man baa nuran bi du ja fa sa réccu kon da xamna ni ñu moytu yoy ku jël sa sa ad sa alaaxira nga jëndee ko sa adina bu ñak solo bi ah tabarakallah kon nag ñu moytu loolu bu baax àddina amul solo mhm. am na solo waaye nga déggee ci ne amul solo mhm. déggil la laaj kon nag ñu gën cee bàyyi xel bu baax ñaan yàlla jàmm sax fi dàkk ñaan sutura sax fi dàkk yàlla ñu yàlla saxal ci njub yàlla ñu yàlla bëgg nañu bëggee nañ bëgg yàlla waaye yàlla nañu yàlla gën a bëgg kon bëgg yàlla neex na lool waaye yàlla bëgg la moo ko dàq kon nag yàlla nañu yàlla bëgg bu ñu yàlla bëggee rek suñu lépp baax di leen wax ne leen a ah, comme ni nga ko xamee mhm. euh, ñu ngi ci xasida yi di créer mm-hmm. ay air mm-hmm. ay taalif di mm-hmm. def ay cassette di def ay clip di former ay ndaw si yoon wi ñu nekk du yàgg dara incha xëy na nit ñi dinañ gis ay ndaw yoo xam ne ñu ngi leen di former ñu nekk ay jeune talent comme ñun dem nañ ba nit ñi damay faral di wax ni góorgóorlu nga ba ñëpp xam la ci média bi parce que lépp sa effort bopp la nit jàppul ci sa loxo lijjanti la dara lépp yaa koy ñafeel sa bopp yaay ñafeel sa bopp di génn cassette di génne clip di def effort boobu nga am gëm-gëm bi nga am dogu bi nga am yàlla mayut ko ñëpp. dëgg la ndam loolu nag. Hmm. pour mu pour mu nekk ndam loo xam ne. Hmm. ndam lu wér lay doon. Hmm. da ngay fexe ni la nit ñi xamee ak fi nga toll nga fexe jël ay nit yow tamit ba ñëw ñu xam leen. loolu mooy ubbi sa xol bi yaatal ko. ndax tamit léeg-léeg dañuy faral di wax naan aar bi gaa yi ci nekk dañuy siisante dañuy bot di wante ah man na du ma ne amul waaye nag ku leerug yonentu yàlla Muhammad nekk ci sa xol bi ku leerug Seydina Cheikh nekk ci sa xol bi leerug bëgg mag ñu baax ñi nekk ci sa xol bi ah. boo gisee nit di góorgóorlu ci lu baax do jema xol nokoy fakassale koy da ngay jema xol noko noo porte loolu nak lañ gis yow Seydina Alioune du ma wama illa bima alimna sank ay bobu la bëggone indi sax waaye ma ñëw ci yow rek ay bi feñ kon nak kenn du yow kon loolu dafay wane ne rek say bi lépp leer nga nekk Seydina ali sa tour moy firi kawe kon mënoo def lu dul kawe kon nak may faral di wax ne ñi nga xamné ñu ci kaw Mm-hmm. ah nañu góorgóorlu jéem a jàppale ñi ci suuf dana ci am solo borom ñi nga xam ne yàlla tamit dénk na leen mm-hmm. ñu am as mm-hmm. nañ jàppale ñi nga xam ne bëgg nañoo feeñal mbindu mag ñi ci ci ci taar ci feeñal ko moo xam bitim réew la moo xam fu mu mënti doon wallaahi wallaahi sagam saytaane wala iblis. Hmm. moo formé ay caaxaan katam. Hmm. formé ñeneen ñoo xam ne. Hmm. dañuy jël seen alal. di ko def ci ñi nga xam ne caaxaan rek la ñuy def. kon yow mi nga xam ne yonent ko leeree. te dëgg Seydina Alioune Faye. bu set buy ñëw ci rajo bi xamoo ban coono lay daj. bu ñëw ci rajo xamoo ban coono lay daj. waay waay góorgóorlul. oto bi nga yëkkati di ko jox. kër gi nga yëkkati di ko jox. du jëmmam waaye da nga ko jox ngir Seydina Muhammad sallallahu alayhi la ko defal ab soto ci àjjana. ma defal ma lenn. <laughs> yalla tax may wax billaahi wallahi su ma ko amoon maa la koy defal maa koy defal say morom kon nag ñu ngi koy ñaan yàlla inna allah tayibun mhm. laa yaqbalu illa tayiban inna allah xaalisun mhm. laa yaqbalu illa xaalisan nit dana ay milliards mhm. waaye du ko mën a defal koo xam ne dafa nekk ci yoonu yonent yàlla Muhammad lu tax nañ seet fu mu ko jëlee boo jëleewut fu baax mënoo def ci yàlla <laughs> loolu bu mu la jaaxal de waaye diw alalam ji muy bëri bëri mënu cee jàppale ñuy tagg yonent bi daa xam fu ko jëlee kon nag yàlla ñaan defal tawfiq yàlla ñaan defal jàmm di wax gars yi ne ñu ngi ñëw insha allah rabbi euh, yeneen xasida mi ngi yeneen cassette yeneen nangam ak yeneen tournée ñu ngi waajal tamit yeneen tournée insha allah rabbi moo xam bitim réew la moo xam fii la mhm. lépp rek ñu ngi koy waajalaat daal ñu ngi ñëwaat daal tëju bi mhm. euh, amoon na solo daal insha allah ah, ñu ngi jéggalu nag lépp lu ci jub rek mhm. ah bëggoon mu gën a jub la lépp lu ci dëgg ñu xam ne <laughs> benn waay la boo xam ne ah. day làmbatu rek <laughs> ah, xasaar la gën a am <laughs> waaye du xam-xam la ñuy waxee du dara waaye cofeel rek ak bëgg suñu réew rek wax dëgg yàlla bëgg ñu kenn des ginnaaw ci réew mi mhm. waaw mhm. ñun am nañ fréquentation bu ne mhm. soo ñu gisee ñuy wax sax da ngay foog ne waa xanaa du toog koo xam ne ni nangam de <laughs> waaye boo ñëwee sama koñ gis ñu may toogal di naan ataaya da nga naan wax xanaa du kii laa fekkoon ci rajo bi loolu nag li may jàngale rek mooy yunti yàlla Muhammad bu demee ba am ñu koy fréquenté ñoo xam ne gëmuñ ko gëmuñ yàlla mi ko sàkk kon yow war a fréquenté nit du la rek naan waaye sëñ naa la yow tamit nag kilifa gi nga toll kaay ma mm-hmm. gis la mm-hmm. ñi ngay toogal nii booy yi nangam nangam <laughs> waaw bu fekkee booy yi dañoo ne ci yoonu safaan mm-hmm. nga wax Seydina Ali mi nga xam ne nga am ci moom yaakaar ne ko bul fréquenté ñii ñooñu yoon wi ñu ne leen ciy gindi nit léeg-léeg dana na ci aw yoon. Mhm. ngay niru niru lu aw wa. Mhm. maanaam ñëw ci seen biir jaxasoo ñoom. Mhm. ni ñuy soloo ni ñuy waxee ni ñuy nangamee. gis nga cofeel gi ñuy am ci yow moomu. ci ngay profité ba ba génn leen ci li ñu nekk. te duñ ko na waaye yow yow xam nga ne yow carrément moom. ñii du metti bañ bañ yóbbu la ci li yaay xool ban politique ngay def ba génn leen. ba leen ñu nekk loolu nag jaxasoo ñoom moo la koy may. wallaahi yàlla xam nga leen koy dimbalee. ci boo boo ko amul sax li leen sax sax di leen jàppale. di leen kii bu parce que bu ñu am ci tahaadu wa taxaabu tax cofeel di dugg seen <laughs> defee rek mbir yi daal di sotti kon nag su ko defee mm-hmm. loolu ñi koy gën a bàyyi xel mm-hmm. dafay gën a am solo daal ci biir société bi ñu bañee di bot di wanteeg yooyu surtout nit njuumte mën ta ñàkk dëgg la benn làkk la mm-hmm. ci làkk yi mun naa ne daanaka moom meññi làkk yu bëri France français ak allemagne ak nangam nangam la dafa benn proverbe bu muy wax ne errare humanum est sed pece ferrare jabalukum est mu ne njuumte am na waaye dëkk ci tayef la kon na li ma bëgg a wax mooy. Mhm. nit bu juumee. Mhm. maanaam bul tëb rek dara ci kawam nangam nangam nangam nangam. Mhm. doomu aadama dañ koy suturaal. kullu aadamiyuuna xataabiyuun. Oh. wa xayru xataabiyuuna tawwaabiyuun. kenn mënut a ñàkk juum ci yéen. dëgg xalif général day juum. xam ne. waaw kan moo ko gën a rëy ndombol tànk ci réew mi. kenn waaw imam bu jamajee ci julli. tegaluñ ñu ay ay sart yoo xam ne bu jamajee nii lañ ko war a war a wala gàggante imam bi soo ko gàggantee naa forcé déedéet imam bi sax xanaa lii-lée moom ci boppam mu ñàkk wóolu li mu def hmm. pare sax laaj mbooloo bi ñaata rakk la loolu yëpp suñu borom dafay nga xam hmm. a taxaw ne diw bi moom warata juum wala diw du juum <laughs> wala nga nga doon am fu la am foo nga jàpp ne man du ma juum. heure hmm, la loolu loolu rek dèjà njuumte la. waaw man doo juum rek ah, njuumte la waaw njuumte la. soo yonent bi waxee ne. wala ma raaw ayuba naasi ayban ka naqsil qaadiri ala tamaami eh. ayib bi mhm. gën bon ci ayib moy mhm. ki feñal ayib jambour wallahi deug la anam ci upp ayib ci nit ñi moy mhm. ki feñal ayib jambour deug la ci wër yow da nga créer ce site rien que pour di feñal ayib jambour yi rek da nga jappal na yow ya upp ñep ayib yow mi feñal ayib ya upp ñep ayib assalamu <laughs> alaykum wa rahmatullah mo la borom sama mak da dox naan an ayib al wara bi ayib nafsik al بعيب wallahi المحقق zarqa أما ni yaman da دلان gis dox ñet témèr at distance boobu da ko daan xool di ko gis. mais na nga ko dàq a gis nag moom Zarqa moom na nga ko dàq a gis say ayib say bopp. Mm-hmm. wala ayib mbindeef yi. ndax wa ru'yatul fadli al day tax doo yegg ci yàlla. Ah, bu dee koo gis jàpp na rek yaa ko gën. yow doo yegg ci yàlla départ goo sax. kon bul xeeb bul xeeb kenn nit ku nekk nu mel àndal moom ci sa jikko. tabaarakallah bu yàggee rek nga defar ko. Seydina Omar bëgg ah, nañu. kontaan nañu ah, tabaarakallahu xam nga danaan jullit pire mooy jullit mooy ki nga xam ne hmm. li mu yéene boppam moom la yéene mbokkum ci litam te xam naa ne fa tabaarakallaahu li ñu yéene tabaarakallaahu bëgg nga ñu may ñu ay otoog yooyu waaye yow tamit loolu loolu yow noonu la la ko yéene yow tamit allah ndax yaa ngi ci mission bi yaa ngi dem fu nekk di tag yonent bi te inshallah taala yàlla na tagat ko xamne ni nii rek moko ñor mu yëkëti ciabi tek sa lox na si namar li dama bëgg foy dem nga di war di dem ya. bi dox sa mission. ñun ya waaw inshallah taala yalla bërna na sutura kon fa tabarakallahu mbokki mo ngi nonu foom naa foo la ñuy daanale sunu kàddu dinañ jox dig dajé ci yeneen émission di ñaan yalla yalla yalla def jamm ci réew mi di Sénégal waye di nuyu sun technicien bi haji Samba si hmm. nga xamne su ngeen gisee image yi mu leer rafet ngeen dégg kàddu yi mu leer tabaarakallah moo fi jaar di jàmbaar lool ci kër gi macha allahu taala ñu ngi koy ñaan yàlla moom tamit li mu bëgg yàlla na ko yàlla dafa ci daraje sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu Cerno Hamidou Baan mi nga xam ne mooy borom kër gi fa tabaarakallah di ko ñaanal yàlla voyage mi mu voyage yàlla na dem ak jàmm ñëw ak jàmm ci daraje sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu